nit am na doole mën naa bëre du mën a daan kenn loolu li koy sabab nag mooy nit ki wala mbër mi na bàyyi xel ni gàllaaj dafa am solo ci làmb te gàllaaj dafa am accès bu mm. am solo ci làmb mm. te itam képp koo xam ni jox nañ la sa reliquat wala ñu jox la sa xaalis mm. na nga ci bàyyi xel wàllu ñaan ci reliquat moom na laay taxaw waaw euh, na ci bàyyi xel bu baax a baax laaj benn question macha allah nga tontu ma ci mm-hmm. démb mm-hmm. dem nañ ba bala Gaye 2 sax di mm-hmm. déclarer di accuser CNG ne ay sàcc ngeen. parce que Ama Baldé nee na sama combat bu mujj dagg nañ ma 3 millions. ñii ay millions lañu dagg ñoom ñu ne millions yi xamuñu fan lañ ko jëmale. léegi yow tey. soo doon wax ci li ñuy dagg mbër yi. ban ban lan lan lan moo ci sa xalaat loolu. waaw xaalis bëri bi ñu dagg mbëri mbëri di ko jooytu ba nee na jaral na leen ñu dajaloo def lu metti pour ñu changer leen loolu yow ban message nga ci am sëñ Baba waaw macha allahu taala maa yi ba euh, loolu wax dëgg yàlla bu ko mbëri kaasee kaas nañu lu ñu war a kaas ndax am na loo xam ne bu jaaduwul nag da nga koy kaasee fa nga ko war a kaasee te dafa am loo xam ne nag jaaduwul mm-hmm. ndax am na som boo xam ne boo ko daggee ci nit war nga ko justifier wu ni ko lii moom moo tax ma dagg ko ci yow ak ko daggee fii laa ko jëmale bu ma ko daggee tamit fii laa ko jëmee mm-hmm. léegi nag bu boobaa loolu dana dalal xelam ba lam ca waroon a wax mën na ko caa bañ a wax. kon li def àndoo ci. non ànduma ci li tax àndoo ci. li tax ànduma ci moom mooy. Mhm. benn mbër nga jox ko effectivement joxaat ko effectivement mu dem nga ne ko dagg naa la 3 millions fan nga ko teg loolu fan nga ko teg. Laurent Ndiago dem na jëli reliquat jox ko 200 2500 francs CFA. loolu c'est pas loolu fan nga ko teg loolu fan nañ ko teg ak loolu bu amee lan moo ko waral loolu nag ñenn laa ci ñenn laa ci joxañ baaraam mooy mhm. ménageur mbër yi. est-ce que loolu ménageur mën na ci si ménageur mën na ci bari parce que ménageur bi moom moo koy toppatoo loolu mbër mi mënta entraîner di wuti sëriñ mhm. di di dem di wuti doole di dem extérieur di dem feneen ak feneen bàyyi fi ménageur bi te ménageur bi du toppatoo loolu Gris Bordeaux moom nee dañuy ànd ak ñoom Ama Baldé parce que ñoo ñëpp dem démb dañ doon tëj seen signature contrat contrat yi ñu amoon loon ak euh, Alburax mhm. léegi ñoom nee dañuy préparé wu mhm. pour ñoom ñëpp ñu jóg song waa CNG mais loolu te yow am nga ci loolu farata pire la <laughs> parce que mbër mi du taxaw ci digg làmb ji dem wuti ay sëriñam dem wuti doole jàkkaarloo ki muy jàkkaarloo di dóorante ay corpagne pression jàpp ko lu tolloog trois mois quatre mois mu ñëw bëre ci biir làmb ji di def lu mel ni ay ñaanam ku mel ni Serigne Babacar jox ay jox ko ay mbir ni ko boo demee ba albi di a sifle nii ak nii ak nii ngay doxalee muy ay tegtal yoo xam ne daf koo war a def pour mën a am làmbam parce que làmba làmb am na làmb yoo xam ne dernière minute te te tey mu ngi jóge ci feebar. waaw li sonn ba pare bëgg sauver làmb ji. bëgg parce que Ama bi muy bëre euh, Modou Lo. Mhm. wérul mais nee na combat bu dem juróom-benni at. Mhm. sama xaalis jeex. Mhm. problème yu bari. ñuy coow làmb ji. léegi il faut nga mettre ko fin nga feebar rek loolu mën a jot il faut nga dem loo loo am jël. non loolu laa lay wax. loolu laa wax combat boo xam diire na juróom-benn juróom-benn at. dañu waxante dëgg. sa xaalis yëpp jeex na. nga ànd ak stress parce que yaa ngi koy xalaat guddi ko xalaat bëccëg say mbokk di ci dox guddi di ci dox bëccëg nga dem sëriñ wax la ni la demal nga def tegtal bi ak tegtal bi bu ñu waaj a bëre arbitre bi ni la heure bi jot na nga war koo def mënoo koo def ñu effectuer la ni la dagg la sa xaalis dagg la lu tollu six million mais koo fay benn vingt millions dagg ko six million lu muy desee dañu wax dëgg trois millions trois millions. kon yow attaque bi d' accord ci. non loolu d' accord naa ci en cent pour cent. te loolu CNG war na cee taxaw waxtaan ak mbër yi loolu mu teg ko ci yoon. aussi tamit affaire bi mën a avancer. incha allah mbër yi nee na dañuy def marche. Balla Gaye 2 moom nee na ay sàcc lañ. moom nëbbatuwul. waaw nee na ay sàcc laa leen tuddee. loolu la wax. Mhm. waaye man dama bëgg ni dama bëgg ñu def leen waa CNG. Mhm. fii laa jële fii laa def. ok mu leer ci boppi askan bi. Mhm. bu ko defee menn mbër du am leen looy kaas la looy def. Mhm. mais koo ci ni leen lay dagg foo fu ñu koy def da nga naan man xaw ma fu ñu koy def. Mhm. te dan ni woon bu ñu daggee mbër dañ koy delluwaat promoteur bi bàyyi Ndiaye taxu na dem ni CNC mosuma jox benn reliquat bu jóge ci dagg indil ma ko. mais et charge yi ñu teg euh, gars yi dafa xaw a bëri. dafa metti ndax mënoo luyee stade jënd gasoil man loolu bi ko bàyyi Ndiaye waxee démb damaa waaru nga luyee stade bu pare groupe bi nga jëndal ko gasoil loolu métti na torop ba pare am na beneen trois millions cinq cent mille xaw ma bu ñuy joxe. xaw ma caution caution ba pour lan la. pour lu yàqoo ma. xam naa loolu la pour lu yàqoo. ah caution moom <laughs> lu ñu lay delloo la. waaw loolu mais su xam nga tey ji promoteur su monté combat. Hmm. lu combat bari bari xaalis. Hmm. boo ko nee caution trois millions cinq cent mille te yoratu ko. Hmm. léegi loolu nan la koy gérer day dem abdiqué ko pour ñoo joxe ko. ah xanaa day jël. te lam mën nga tëgg perte mën nga tëgg bañ. fin comme li mbër yi def tanoor yi liñ def dem VIP yi ci kaw. Mhm. lin lin lin ni dañuy àndandoo. man d'accord naa ci loolu. ñu xool ba xam dina saafaru wala duñ saafaru. est-ce que duñ ànd ba ci yàgg nag ñuy jaar péage ñuy jaar rang loolu laa bëgg a ñëw daal di rocceeku. Mhm. joxe la joxe bopp roccu làmmiñ loolu baaxul. Mhm. bu nee ñoom ñëpp dañuy mànkoo àndandoo dem CNG rikk waaye nag kenn ku ne ànd ak sa ngor ak sa dignité ba mu mat sëkk ci leen leen def ndax am na ñoo xamante ne ay gor lan mun ñoo reculer. yow nag boo nekkee ba ci biir rocceeku da nga leen sono yow ma rocceeku comme ni Moustapha Gueye wax démb rek sunu tonton jooju mu ni eh, suba nga gis kii jaar fii kii jaar fii kii jaar fii. waaw mais ñoom ñoom xam ne ñoo bëgg organiser. ñoom di wax ñu ngi weddiwaat seen bopp parce que ñu ngi toog di wax. nan bu ñoom seen bopp ñoom ñoo toog di ko wax. nee na kaa la ñu organisé wu. waaye ñun ñuy organisé bu subaa ñuy jaar ni ñuy jaar ni. ñuy jaar ñoom ñu wax nii. ba gars yi naan lool la war a def dafaa koy waxaat ne bu subaa. Mm. ñun ñoom encore dañuy jaar nii ñuy jaar nii. Euh, dafa bari nit ñoo xay nag dañoo yor jukka yu bukki bukki dafa yomb rabu àll yëpp ni leen eh daa mel ni ndaw la nga fee sama ginnaaw ma romb de. Mm. rabu àll yi ku dem delloosul bukki ni man est-ce que man mi ma dëgg. bukki demaat ba ci biir ni man est-ce que waxuma dëgg man mhm. maam ndawal bi nekk si ginnaaw moom nee na est-ce que moom waxul dëgg mhm. da da doon tooñ rek mhm. mais ku dem doo desiwaat moom jàpp na ni ndawal mi ngi foofu te mën nañ ko rey te <laughs> mën dama bëgg sénégalais yëpp ñu ànd ak ngor ak dignité xam ni lépp lu faay gañ sénégal gi rek la yemaat loolu nag li koy maye ngor la ak gore boo ko defee kenn du la sonal ci dara est kon est kon euh, baaxul CNG ci boppam bàyyee làmb ji waa làmb. ah moom loolu lañ bëggoon. parce que loolu moo loolu moo logique. candidat yi gisoo leen Moustapha Gueye mi. parce que tey ku mel ni suñu euh, na ko xeex. tey Tyson koo defoon tey président CNG. waaw làmb ji du am yëngatu de. keroog lay def. perte vague ko defoon parce que bu nu mu dee dee Balla Gaye de bu woowee perte vague yi ne ko li nga def ci làmb ji jaarul yoon. dana ko woo na ko fiskaa ñu waxtaan. balaa wax ji jëm kaw. est-ce baaxul waa CNG bàyyee làmb ji làmb ji. waaw loolu lañ fa waxoon. ba hmm. kenn ku ne doon candidat. Hmm. ñi bokk ci làmb ji am ñoo xam ne doon nañ candidat. Hmm. ñu seppi leen ba mu set jël euh, sunu mag bira seen teg fa. mais gis nga li ci coowul aran bi nii mooy coowam mbapat li. benn mbër mbappat da nga gis ñu man dañ may xeex moo demee nangam sàngam waasoo yi affaire yi noonu loolu waaw loolu loolu na jóg ci làmb mhm. lépp Sénégal la yam gis nga li nga jàng man ko mooy sa atelier foo mhm. mën a dem moom nga ko yóbbu mhm. fi noonu Balla Gaye li muy ko nit ñuy topp topp mbër bëreem mooy atelier am bëreem mooy entreprise moo ko mën a jariñ kon nanu delloo si xel yi ak xalaat yi Balla Gaye de téye benn avance waaw Ama Baldé téye na benn avance ku ci nekk ñoom ñaar boo leen doon jox adversaire koo leen doon man xaaral moom man Gris Bordeaux Tapha neex na ma trop. mais ñoom ñaar waxante wuñ seen ah, mu neex na ma trop ñaari xeexkat lan de. déggoo la mu la Gris Bordeaux Tapha Tine. combat bu neex na ma trop combat la. combat bu promoteur yi war nañ cee waaw combat jànq la. bu ko defee Ama Balde na du junj franc waaye c'est estafan naa ma Ama yaram bee tàngoon pourtant combat la combat bu neex la. kan Ama Baldé Franc. mais Ama bañul. waaw gars yi nee nañ Ama téye na téye avance. ah téye moo des ay ay réglage. waaw loolu dañ ko dégg nag. léegi nag ñu ngi ñaan yàlla combat bi yàlla na taxaw. amu ci lu la dañ ko dégg waaw dañ ko dégg. mais ndax télé moom boo ciy wax. waaw wax lu wóor. waaw yàlla na taxaw ndax combat bu. daal Ama bi ñu koy na ko jot na avance moom mi ngi toog te weddiwul léegi nag comme Franc jotagul. Mm-hmm. te Ama bañul bëree xale yi. parce que ñooñu ñooy ay moromam aussi yaa dégg. waaw egsi na si ñoom. egsi na si loolu la bokk. fexe na ba dugg ci appartement bi. bokk na kenn mënu ko koy jël. yaa ngi dégg kenn mënu ko franc moom man dama gëm ni képp ku bañ a bëri moom am na loo hésité ci moom. man fi fi fi làmb toll. waaw loolu day waaye nag franc day ndaanaan nag mm. wax dëgg yàlla am ginnaawam ko suuf fii ci arène bi day ndaanaan ku ko bañat mën naa am daa am loo sóoraale ci ginnaaw mm. mais bu dee sëgg bëre rek amul menn mbër mu ko war a bañ fii. est-ce que kon Balla Gaye ak Modou Lo tam nekk ñu def seen devoir na jële ji euh, Boy Niang rakam. waaw mu daan ko dem may sens euh, Ama Baldé que may bi mooy moment bi bi muy bëreeg moom su ko neexoon du bëreeg xam nga lu tax loolu. Mhm. bu njëkkoon da nga naan Tyson Bombardier Yékini yooyu noonu. Mhm. la fi booy bëgg jëlee. dañoo bëgg di xëcc di ak ci kaw. looloo tax mayence gi am njariñ te te te te magante wuñ de. magante wuñ ay magante un an ak. tafam rek bu nit ak tofam la. waaw wuñ de rek ñoom ñu rek. nit ak tofam la rek. Mhm. kon làmb ji bu ñu ko defaree lu ne mën na ci am. léegi li koy defar nag xol yi àndandoo àndandoo doon benn. Euh, sëñ Babacar est-ce que jekkul wala parewul war waruñoo pare pour jël làmb ji nangu ko ci loxo CNG jox ko jox ko làmb ji. waaw maa ngi macha allah taala loolu moo jaadu sax. ndax euh, mbir mu nekk danga nga koy jox ku ko mën waaw chauffeur bi jox ko oto mu dawal tailleur bi nga jox ko machine sëriñ bi nga jox ko xalima mu bind mbir mu nekk danga nga koy jox ka nga xam ni mooy métier am macha allahu taala kon nag làmb buñ ko joxee ñi nga xam ni ñoom ñooy ancien gloire yi ñu toogee CNG bi nekk fa di doxal dinañu gën a mën a xam li nga xam ni mbër yi bëgg nañ ko ak ñu bañ ko wala nekk nañ ci bu boobaa ñoom danañ ci mën a jàppale mbër yu baax ndax doonoon nañu mbër takk takk sér di bëre am nañ fi ngoon bu nekk kon nag loolu bu fekkee nit ki yàlla dimbali na ko mu toogee fa muy décider bu boobaa mbër mi dana ko mën a respecté waaye koo xam ni mosoo takk la mosoo takk sér koo xam ni sëriñ nga mosoo toog ci daara mosu mënoo bind mu sallas mënoo bind mu rabawu mënoo bind mu xamas nan nañ lay boolee ci géewu sëriñ si loolu du mënut a nekk takk jóg mm. dama am benn laaj bu am importance bu la bëgg laaj mm. sponsor yi. bi ñu dawee ñëw ci làmb ji. loo gis ak loo yëg ak lan lañ war a gën a def. waaw pour téye leen. sponsor yi moom. Mm-hmm. li leen di téye ci signature contrat yi la ak supporters yi. Mm-hmm. boo gisee ñu dawoon làmb dafa demoon ba xajam. bari xeex ak xari xeex. Mm-hmm. te loolu nitu nit gu teraanga bëggul loolu quoi. Mm-hmm. bëggul di wane yooyu ci ay mbiram. ay violence bi nga gisee nag yëf yi dal lool macha allah signature yi neex jaayante combat bi te dara xeex du am dara. du am ñoom yu neex dañuy daw ñëwaan ñoo bokk lépp di. dañuy daw ñëwaat lépp Sénégal la mm-hmm. mais boo indee xët-xët ak yooyu ay xeer supporter jaar ni ñoom dañuy téye seen bopp toog seen i tànk. sëñ Babacar sponsor yi ban xalaat nga ci am. sponsor euh, dafa am solo ci lépp. même suñu émission yi nga xam ne dañ koy def fii sax soxla nañ ci ay sponsor ndax émission la boo xam ni gàtt-gàtt junni nit danañ ko seetaan wala lu ko ëpp macha allahu taala kon nag lépp loo xam ni dafay promouvoir euh, sénégalais yi sénégalais yi di ko bàyyi xel di daw di ci dem maanaam bëgg ko di ci nekk sponsor yi war nañoo mën a ñëw dugg ci ndax sponsor yi ci askan wi nañu bokk dañuy tibb di def ci askan wi askan wi di tibb di def ci ñoom ndax ku ci mel ni ku yore sa produit di jaay askan wi ñoo koy jënd mais boo gënee jege askan askan wi danañ ko gën a jë mën a jënd. Mhm. boo gisee euh, maanaam ma ñëw ci ku mel ne Aziz Ndiaye boo gisee lu ci mel ni diwin. Euh, dawlin jooju di mel ni mhm. dawlin Zador. macha allah ak mhm. euh, ceebam boobu. boo gisee li tax nit ñi di ko consommer bu baax. boobu moom ko may. waaw boo gisee macha allah maa ngi. Aziz da ko war a fay waaw boo gisee li tax nit ñi di ko consommer bu baax. loolu la dafa jege nit ñi di sponsoriser li nga xam ne moom la ñu bëgg. macha allah taala bu xew xewlee mu dem bu Tiwaawan doon xewlee mu dem macha allah teg ci tamit bu làmb ji xewlee mu organiser ay làmb ba pare sponsoriser ko ba pare nag lépp lu jeunesse bi nekk mu jàppale leen ci. Mm-hmm. E, di feeñ ci bépp côté. moo tax mm-hmm. euh, ay yëfam di gën a dox kon nag euh, lu ci mel ni làmb wala lu ci mel ni wàllu tasawuf ci Sénégal. Mm-hmm. képp koo xam ne dugal nga ci sa loxo ci wàllu sponsor. yow da ngay fay sa bopp rek. ndax li ngay li ngay jaay dana jar. li ngay wone dana feeñ li nga bëgg dana am incha allahu taala